asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ñoo ngi fii nag kër guy bi gi Cité ASECNA fas yéene waxtaan ak moom waaye waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf ku ci ne xam ne dégg na bruit bi nga xamante ne instant bi moo ngi am ci làmb waaye mu am tamit ci côté Guédiawaye mhm. dégg nañ ci problème boo xamante ne wala boog am na problème boo xamante ne dund nañ ko fële ci États-Unis ginnaaw ba foofu moo gën wootee ñoo mbëri ñu teewoon ko moom moom guy gi Abdou liiru Lirou am ama neex ak mobile coowee ci am nag yéen ñëpp yaakaar naa ne seetaan ngeen ko Ndiirou Diane ginnaaw bu mu génnee def benn sortie ñoom tamit ñu am droit de répondre woo presse bi fas yéene andi ay leeral ci loolu noonu waaye nag dina andi ay leeral ci kombaam ak ki nga xamante ne moom mooy Reug Reug bi nga xamante ne Reug def na ko ba ni dafa jàpp ni guy gi dafa soxor wax yi nga xamante ne daf ko wax te ni moom paala daan yooyu yëpp dana ci andi ay leeral waaye andi ay leeral digganteem ak waa géej waaye li liñ koy ji moom moo ko def wala defu ko ak lu mën a xew loolu yëpp dinañ ko ko laaj presse bi yëpp nag teew nañ waaye nag dañuy nuyu Abdou Diouf nga xamante ne moom mooy magam comme ni mu ko waxee ni moom la gis ne moom moo war a ubbi président président la ah waaw Abdou Diouf waaw waaw waaw maa nga dëgg maa nga ziar Abdou waaw maa lay dolli ziar bon ginnaaw ma sant di julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant képp ku teew fii waaw di leen dalal jàmm waaw waaw nañ jox kàddu gi kii ah. après ci kanam ñu xóotal incha allah waaw bisimilah bi waaw d' abord bisimilah ange billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim yàlla jur cant bi sama ñaari waaju maa ngi nuyu suma sëriñ sa yaa sekk borom digal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg ak wér di nuyu sama xalifa général Baye Dramine sekk di ko ñaanal yàlla yàlla wal fa yéen bi ba ci kanama kanam di ñaanal sama maam Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yóbbu ko àjjana ak bépp xalifa général bu ma fekk hmm. yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def hmm. di jaayal suma bàyyi ma ngay deer maa ngi dégg léegi suba ñu tàggee ma ko papay coon dafa wàññeeku xam naa rek fa laa jëm cana ko jaare yàlla léegi laa ko yëg hmm. di ñaanal Baye Mbaye suma lépp suma sëriñ bi ma ñaanal sumay combat yu bëri moom it dafa làpp démb yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ci jaale ñëpp waa Touba di ko jaal tamit ay mbokkam Abdou Kane Cissé ak say sama lépp la woon vraiment te ma maa ngi suma combat lu bëri mais jàmm pexem yàlla dogalam yàlla mun na ko yóbbaate ne yàlla na yàlla def di nuyu tamit suma yaay Waré Sarr comme ni ma koy waxee suma lépp suma xarit suma confiance nuyu nas suma xarit démb bii li amee Abdou Diouf bi ma wooyee dama dañuy génn leeral man lu ma wax rek dama koy def Abdou Diouf suma frère la suma mag la suma lépp la dama ko ne wol nas mu woo nas ma woowaat nas nas na ma amul lu ñuy def rek yëgoon nañ ci am nañ ci ndigal mhm. moo tax te ñu woon leen presse di leen jaajëfal di leen nuyu bu baax woote ñu wuyu solo yombul mais gis nañ seen Pastef seen lépp maa ngi def benn taabu gàtt arrêt mais bi ma ñëwee dafa mel ni loolu sax yëgoo leen kon defe naa li tubaab bi naa nous sommes nous daanu ñun ñoo far ñu ñoo bokk te at na mu solo dindi tuuma du ragal mais leeral la mhm. parce que réew moo toll foofu parce que si bëri na bëri goo xam na yokku léegi da ngay bu jug rek buñ ko wax bàyyi ma bu joxe bu ko joxe Sidi Mor nit ku am sax personnalité bu ko joxe Sidi Mor mais du ñu ràññee ki ñu ràññee mooy ki mën a wax toj toj erreur ñu def seen bi coow yu bari man ak yooyu nekkuma ci defe naa li ñu fi indi tey ñaari point la leeral tuuti ak lu jëm suñuy combat parce que ñëpp jël naa combat yi wax ju bëri na nangam nangam nangam nangam mais li ci kam luy bët question réponse incha allah. question réponse comme ni nga waxee rek da <laughs> googal la waaw mais avancé après nga ñëw fekk ko avancé. waaw ok comme ni ko waxee rek da tuuma da nga ne tuuma du ragal seetal sa der la tuuma la jël teg ko sa kaw bu fekkee. la xewoon États-Unis la liiru jaan lañ gisagul mu def ci benn sortie sinon yeneen sortie yi ñu tudd wax ñëpp tudd ñu la ci ban problème nga am ak liiru jaan premier voyage États-Unis ba Las Vegas comme ni koy waxee ba ci bu mujj bii nii ci événement bi nga xamante ne moo gën na ko organiser. Euh, li ma ci bëgg a wax xam naa ni dina xaw parce que man. waaw. Lamine comme ni nga ko waxee rek. damay njëkkee tuuti rek. di nuyu tamit comme waa États-Unis mm. Abdou Medina Yambou Ndiaye Laye Ndiaye mais yàlla boole depuis 2011 ba tey dama dem États-Unis bu ma demee lépp day rafet ba tey di nuyu suma grand Abdou Abdou Diouf Abdou Medina Amital Sérém di nuyu Ndoye Diouf suma xarit di nuyu Modou Mamour Sène suma xarit di nuyu waa États-Unis gi yëpp bàyyi ma kenn nuyu moo di comme ni ni nga ko waral coow li moo gi ak SF moo gi bi yëpp xaarib jox ko tamit xaarib jox ko suma suma mag suma féete ak xaadim Bézi Ligit moom mi ñu boole woon moom moom bi ñu boole ñu xamante moo rafet ba tey ak Bac Sarr maa tuddee kii Bac Sarr maa tuddee kii xaadim kon defe naa naa cër bu ma jël ak moo gi bi yëpp ah, waaw bàyyi ma kenn su ma demee damay juum mais tey boo gisee tey ma ni dindi tuuma du ragal ñu may ma benn dix minutes boo xam sax day dëgër Lamine dama jógee dama jóge Vegas biñ demee Vegas man bu liiru tuddoo sama tur tey du ma leeral ma moo géej doon moom dafa tàmm buy dem day ñëpp ñëpp sa soppi mu woo ma téléphone ne ma suba 10 heures dama bëgg ñu dem ñu soppi bi ñuy dem mu yóbbu ma man Aliou ak Abdou Diouf biñ naree dem sax Abdou Diouf moo gën xaar xaar Aliou Mané parce que ñoom ñaa ñoo toog di waxtaan mais moo géej buy dem di soppi ni ku neex lay woo mu wooñ ñu dem. bi ñu demee bi ñu ñëwee avant ma ñëw dégg naa ni liiru def tifaar na foofu ay saaga de yurul jeex ci man du ma ñëwee nuyu ko rek grand liiru sax mënu mbër ma xam ne noonu xew bàcc xaa xaa bési woo ma ne ma bul wax jour dama doon dal ci kawam ma bàyyi mu sedd man bañ naa ko boobu suma alxuraan laay teg suma néeg ak sumay détail bopp man ne ma damaa jub mais laa sentir fi ñu nekkee du ma fa nekk fi ñuy lekkee du ma fa lekk fi ñuy toog di wax sax man ma ci wax. yu bëri dama koy moytu. mag Abdou Diouf ñoo bokkoon benn benn benn benn kër. mais bu demee noonu tey sequñu dara ay détails nga ñëw tey ah wàcc Sénégal ñu dëpp la micro nga ne guy def ma bett li ma def ñëpp def na lu garaaw la. ma ni tekk ba tekki woon ma yoon ku ne naan ma tontul wala nangam nangam lijjantuma ci kenn ma noot ba tey ma noot nas bi ma waxtaanee moom dana ma bu ci wax. xam na ma man xam naa ko bu ci wax ma bàyyi mu sedd boobu mooy première élection bi loo amul lenn loo xam def naa ko na génn preuve moom mi may dégg ñeneen ñi may dégg loolu kay jaru ko moom mooy yóbbu ñu suppe ñi man yóbbu ma mu def ni man saytaana la wala nangam nangam benn ma bàyyi bii passé nii maa ngi koy déglu si yow laa ko déglu mu ni aéroport la affaire bi commencé barki Seexu Tijaan laa lay wax nii gis naa ko bi mu arrêté moo ma njëkk arrêté dugg dañoo sori parce que maa ngi juufa dañ doon xaar mu dem New York moom nee na la commencé moom moo ma nuyu bi ñuy def ci raad mënu mbër sawa ma ne ko sawa bëgg a jàmm sant ma ne xam ne xaju fi wala comme am na ñëw na arañe def ma ne garaawul ko sawa suma garaaw la comme ni nga ko waxee gisante waatuñu ba bi ñëw ci aéroport bi biñ kii ci ci ci waa bi ñu ko booy seet ko sa doomu ndey ngi doon liiru ba pare mënu ci aéroport la commencé nuyu wuñ ko nuyu wuñu imagine benn faute beneen bi ñu dem ba fi ñu nekkee ci ci ci hôtel bi oto bi la commencé moom ama neex mi wax ni carrément ama neex moo xëy nuyu ko c'est faux ama neex bu ñëwee da koy daw bu toogee mu jug dem du wax mu dugg ci mais jël arme ama neex pour jaxase ñoo askan yi moo tax mu ni ama neex maa ngi lay nuyu bàyyi ñu man amul benn journaliste ci yéen ku ma ñimee woo téléphone ne ma dama lay teg plateau yaa bi jaar boo ma ko defee ci nga dégg loo xam ne mosoo koo dégg bokkuñu niveau yi bokkuñu palmarès bokkuñu aas bi bokkul kaddu gi bokkul moom am na ñu muy bokkal plateau du man man am naa ñu may bokkal plateau mais tey bu ñëwee rek bisu damaa dem ci eh, damaa dem ci ci saalam bi mu nee day def affaire bi bisu sama xarit la ma ne ko yow yow yaboo ma sax mun ma dimbali ma maa la ko ñaan bisu ngoone bu amul na demantir conférence direct ajjuma ñu waxtaan mënuma man même bu normalul dinaa toog ba posé ko ba jàmm amaat bisu moom wax ne ma ne ko defuma ak moom moom avant mu naan bis bi mu ko laat naan moo def man maa bañoon loolu bis dama bett bi muy toog boo ma seetloo sama kanam naa yu ma ko man ne ko du ma ko def moo ngi toog mooy dama ak ko yow ñi ngi amanteeg bis ma ne ko sama fils la moo ngi toog dama bàyyi ma fenn ma ko defuma ko bi ma bis bi bettee ñu def ko gis nga bi coow la amee man maa ne tàggaleen émission bi jub dem parce que bëgguma fa ay coow parce que xam naa intervention bu mu jël loolu avant boobu avant boobu man dem naa dem naa ci bëgg lu rafet dem naa ci kii bi comme euh, cérémonie bi ma ne maa ngi jël nuyoo bi teg ko suma grand loxo liiru jaar bëgg mu rafet image rek bëgg ñuy gis rek mu rafet te loolu laay dund saa bu xëyee nuyu li tax Abdou Diouf bi mu xëyee nuyu ko ma leeral tuuti euh, lim naan muy seedaloo altan seedaloo euh, wuli deux man wuli deux laa doon waxal wuli deux na ma sa boy de sa boy de bu ñu li ñu doon wax noonu nangam expliqué waaye booy yi nu ngeen jotee ma ne ko man de du du ma ci wax ñaari baat yoo xam ni dañ may ŋàbb booy sumay rakk lañ waaw ku ci am soxla ma ma may la ku ci amul soxla euh, ku ci am soxla wax ma su ma mënul xam may mere ay de ma wax quoi man yàlla teral na ma quoi saaga ndey bi mu dagg ma damaa tiit barki seexu tijaan saaga ndey bi mu dagg liiru jaan kaamil laa yor barki alxuraanu karim barki seexu canaba su amul yàlla bu ma daan rëg-rëg Abdou Diouf dina ñëw kaamil laa li mu wax lépp ci internet bi c'est faux amul xam nga mu ni ma man ku ma gaar waale man nangam sanday ñi fi nekk ñëpp dañoo tiit wuli dafa tiit ak benn grand bu ñu wax moo dafa tiit man sax damaa tiit di lox mobile bi muy seedaloo mobile ci digg bi jël position am defoon damay naaw ci kawam mobile li mu wax dama ne yow yaa ma gën yaa ma gën ma ne waaw man kii nu mu demee nii presque du ma jooy ma ne non man jantal mel laa li jarul may jooy. ma avance waat tuuti Abdou Diouf yéeg may waxaat ci beneen beneen beneen nit. su ma du ma tudd beneen jour ba at mi ci kaw du ma tudd tur ma ni léegi de internet bi fekk dama paa bu génnoon daal ni su ma waxee da ngeen ko xam daal ni ñiy dee musiciens yi ku dee safara nangam nangam affaire yooyu waaye lii ma ni xoolal ak paa bi waxee keroog nee diw di am na nangami vie mhm. mais diina ji boo waxee benn vie ngay am ñu nekk foofu di waxtaan maag ren mun ma man de ku ma soxoree san nanga jaaraat foo xam nii ba bay ak teg benn way Youssou Ndour naan am na lu wax laa naan bi lu may dëgg la kii lu may dëgg la mais man ni man grand bi nan laa ko def di lox parce que man dama rus di lox tali bi loolu amee laa dem ci cérémonie bi ne maa ngi jël nuyoo bi teg ko sama gannaaw loxo lii di jàll hmm? mobile nan lañ ko duggal ci ay kana mais ba mu ñëwee tey am na neex mi muy wax barke alxuraanu karim ba mu ñëwee laaj ma ci mobile li ma ko wax du ma ko wax ci télé mais xam na man naa feq la du ma mobile bi ma ko naan dama lay booleeg moo gi dëju per balla la yaa ngi fa woon kii yaa ngi fa woon def naa yéen àndoon ma ne ko dinaa la jël sa loxo teg la ci moo géej moo géej boole la moom parce que mobile dafa ma sa wax wax bu doy dafa ma fekk fii yàgg na mun ma grand bi yàlla naa bëreeg yow ma ne ko amit munu booy bëreeg yow yàlla nga ma dóor ma daanu gën a rëy loolu mais dinaa dem foofu di jël mobile di ko dugal ci clan yi di ko sacrifier bañ koo booleeg moo fu ma toog moo dafay toog su bëggee jot moo sax man naa jot moo jox ko moo bi ñëwee di wax ci mbëri pour yenn détails nii bi ñu tuddee ama neex damay noo ama neex du def loolu mobile waxi noppi Abdou Diouf mën a xol bi daa bon bu wax danga koy xam kon defe naa ne man nekkoo fi ci ginnaaw moo noonu nangam loolu jàll mais liiru ci biir ci biir kii rek ci dina def noo xam su ma ko toppoon man dama koy rey léegi moo woo jee seen ku ne mu woo ko jee woo ma ma ne ko jee maa ma ne ko du ma wax waxal mobile mobile ne ko moo tooñ lii ak lii ak lii ku ne mu woo la kon xam nga dèjà man moo ma tooñ kuy wax wax nga ni ko tippit saaga ndey te bu mu gënoon fuuf ngelaw fay nekk day dee. <laughs> mais du ma ko non pas du ko def parce que. nit mu ni mu amee bëggoon ma jaxase ak Sénégal wala mu bëgg yàq suma life wala mu bëgg mu jaxase suma combat man du xaw ma loolu. ba pare naan bi mu ñëwee ma dégg li ma gën a métti ma naan na wax lan la ma ñëw baal ko àq bëgg maa jaxase ak Sénégal yi mel ni man dama ko soxoree mais ku soxoree da ngay soxoree koo xam ni yow yow moo la ëppale. man sant naa yàlla fii ma nekk nii ak feneen ak feneen titre foncier la c'est sama bos moo ci nekk 2009 laa ñëw ci làmb yàlla suturaal ma mënu ma fi ëpp ma fi doole yàlla ma ma am li may am lu mu bër am ci làmb bii ma nekk sama bu ma neexoon tey léegi ma génn nangam sama alal la ak leneen ak leneen jabar macha allah sama kër pap macha allah maa ngi dem di ñëw 2011 ba tey maa ngi dem moom bu demee ren la wala daaw kon lu ma koy soxalee man luyu ma sama yaay noppul na sama papa noppul na kenn dafa sama ngénte ñëwoon ngeen fi sama papa kenn saxalu ko leen mu wax loo xam ne mooy loolu man lu ma am samay waajur moo ko gënal kon kay ndey baay moo fi jur sëriñ ma pare naa ci loolu ci wàllum soxorante su ma soxoree sax yëpp yëpp suñu borom la man dama ko soxoree di ma wax daal loo xam ni presse bi ku dégg dafa ni guy gi dafa iñaan te billaay wallaay taala xoolal ki ñaan nekkul ci man man ba ma waat waat wax fulla te li ma gën a métti wax day waat naan billaay wallaay nangam nangam te c'est amul mais na arrêté na arrêté ci man man bëgguma duma man nekkul suma monument man nekkul suma monument nekkul suma grand frère na arrêté bu mu waxat ci man intervenir guy gi na ko dagg sàkkuma ci waa Guèye waaye kenn mu wax ak moom na bàyyi guy gi man damay bàyyi ci force barke Seexu Canaba damay bàyyi ci force intervenir ñu départ ko micro mu ni guy gi man maa koy jëflante ak moom duma ko laal duma laal te dina ma bàyyi ci nii wala ca naar bàyyi seexu ca laa lay génnal nag dama am mbokk am njaboot am ñu ma bëgg am ñu may bëggee mais bu mu toog dama ci sosal ak ñoom man fu mu def na dama koy daw ah amaneex mi wax ni naan moom la nuyoo amaneex boobu ba ma defee loolu la bëgg benn genre collaboration naan maa ngi nuyu amaneex amaneex da koy daw na amaneex gën def def démentir jour boobu bi ma nee maa ngi nuyu sama grand Lirou Diagne Abdou Diouf yi du ma waay am na dafa ma saaga ndey ne ma da ngay cuub sa drapeau yow ma ne ko sunu grand la barke alxuraan njuba yi dama bàyyi ma fenn ama neex na génn wax ma ne ko sama grand la parce que bëgguma tamit ama neex na yóbbu leen ne góojaay dañoo xuloo mais maa ngi rafetal mais comme que bëggul jàmm na ma bàyyi. kon loolee ban na na ma bàyyi soo du ma leeral mais lim génn di ma bëgg a jax Sénégal naan lu ma ko def na ñëw ma ne ko rakk baal naa la te li muy wax version yi la dëpp moom laa bëgg mu leer mobile kii mu muy seetaloo nu mu tuddati. booy bi wuli de mu muy seetaloo wul ne ma damaa rus xam nga lu ma dana ma guy gi man wul sax yoru ma numéro Elton démb moo ma envoyé numéro wul ñu wax ñaari vocal on dans interview hmm, lui li interview quoi man de lii ba muy dama laa ko day man tuma ma ne ko boo demee sa waay na nga wax loo xam euh, sa affaire sa problème guy gi ma ne ko keroog ba guy gi wax maa ngi fekke man mu ma faal taxaw ma ne ko ma faal naa ah. ma ne keroog keroog ba ñu am ba ba ba léegi jaar la ba jàll de guy gi wax man man maa posé guy question guy gi guy gi maa guy gi kii mobile toog ma posé guy gi question guy gi di ma répondre question bi naa booyee kat bi ma réer li ma sax ñoom ñoom porté ma fajal leen ko waaw c'est que site internet site site site yi dañoo bëri dañuy def dañuy jàpp ko dara di ko may bos ñu ne ci site yi wax rek saa waay di nga dégg saaga te loolu waroo ko def. moom ah, non moom lay wax waxu la yow bul tooñ liiru buy waxu la yow wax tudd la vraiment bu defee loolu tooñ la man man dinaa ko saraan man bu defee euh, man dinaa ko woo téléphone dinaa ko ne saa yi man maa ngi woo téléphone dinaa ko ne grand man boobu affaire man man génne ma ci. parce que man moom gën daa wax dëgg ah kon nag keroog ba guy gi wax man képp ku ma laaj naa ne la keroog ba guy gi wax man maa moom guy gi moo bëgg a toog guy gi tudd tudd liiru yan waaw kuy ku dee yaa sa bàmmeel guy gi tudd liiru yan wallaahi liiru yan dépassé saaga guy gi ne teg ne dégg ngeen xool leen nii la la defee man. vraiment te man la waroon waroon def loolu guy gi amul problème gannaaw guy gi moom xam nga man léegi man tooñoo ko xanaa kay moom vraiment am na leneen lu mu la jàppal lu xëy na loolu quoi xam nga xaw ma affaire bi la moom boo ko toppoon waxoon naa la guy gi ne la boo toppee Lirou Diane dina ñaaw trop parce que Lirou Diane kër boo ko def kër boo ko laaloon rek wala nga dóor ko rek musiba waaw moo tax man la kër ak grand bay mu set parce que xam nga rek kii mag la mu pare. te kër boo ko mbajee rek mun na daanu an la fi port mu wala mu mu desee loxo wóorul. daaw nga liiru du mbër liiru comédien la kenn xamu euh, ko. kon nag kooku waroo fenn sax kuy gi ci lan teg moom doxante moom parce que. waaw ci gàttal am naa droit parce que su ma rakk la respecté na ma yoru moon sax numéro démb laa laaj altoon mu jox ma numéro ma ne ko dégg nga sa waay lim lay seedaloo te mobile dina def génn def sorti moom li fa am dina ko wax kon man defe naa li may wax dama ko teg fu wóor Seexu Tijaan laa lay gëmal billaahi wallaahi dama la koy tegalaat ci kaamil bi kaamil laa yor di ci waati dóor sama loxo su amul li may wax yàlla bu ma féete rek rek kaw sama combat bi gën a sama combat yi bari Seexu te bu ma simulee dogalu ñëw ci stade bi xam ne fonk sama combat bi kon defe naa lu ma gën a sama combat bi gisuma ko yàlla bu ma féete rek kaw li muy wax amul te ni muy wax di Sénégal di waat nanga loolu na ko bàyyi dafa am njaboot waat dañuy même ni ñuy wax dëgg la bul waat li nga wax dëgg la bul waat li nga wax dëgg la bul waat nga doog a waat xam nga man xam naa li may wax bu baax mais daal na arrêté ma kenn benn autorité naan la jubale mag liiru jaan xulawuñu na ma baax du sama monument solo mu nekk sama monument jigé mu nekk sama monument bëggu mu nekk sama grand frère bëggu mu may conseiller toogaat naan defal na ma teraanga teraanga ba la ma liiru jaan defal liiru jaan dinaa ko jox sama dinaa jël xaalisam lekk mu ma dëkk bépp ban teraanga na génn wax ko bu dee teraanga ñëw na sama ngénte loolu mun na am dëgg la parce que loolu teraanga la au moom mi moo munul muñ sama alal man moo ko miim moo ko munul miim na ko miim ban teraanga la ma defal liiru jaar mën na maa conseillé. mais guddi na la na la. wala liiru jaar mën na maa jàpp kontaan xanaa ma dama ko mën na mën na maa jàpp nañ waxante bopp maa moom mosuñoo sax bokk milieu entraînement mosu mu nekkul mm, mm, mm. comprendre nekkul. mais dof bo nit nit bu dee wax da xam ni wax dëgg loolu du dëgg musu munumaa jàppale contact bokkuñu man ak moom musuma munumaa yóbbu physique munumaa conseil munumaa may xaalis kon ban teranga la ma defal sama ngent bi mu ñëw loolu moom sant naa ko gërëm naa ko teranga la ba pare beneen yoon mu ni sama booy bi guy 95 bii publié forom yóbbu ma ko mais man la wax ne man maa maa ko sant loolu te man maa woo liiru jaan woo 95 ko jéggalu ko mu ne ko ko jéggalu mais daa am na muy def liiru ne ko guy 95 xaw ma ma ne ko li mu bëgg defal ko ko sunu grand la man maa tax diggante boobu ñu nekkat ah. te waxuma ko mais kon muy toog bu nee am na lu ma jàppal moom na ko wax man soxla ma ci liiru cent soxla ma mu conseillé ma soxla mu nekk suma monument soxla ma suma monument boo déggee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu amoon nu mu doxalee tey géejaay dina tegu ci yoon foofu rek laa fa yem mais nag man du ci nekk di wax waxu bari maa ngi sama pukus su may entraînement sooy mbokk ak ñi ma yàlla booleel may am na ñoom ñu ngi fi fekk bi nga ñëwee léegi tere moo la ñëw moo leen dal su ma la su xarit la doy na ma sëkk ci lépp fii laay toog sore naa nas mi ngi ne ci ma ñor denn mais bi ma ñëwee dama ko jege mel ni ni man kon maa yegg nas parce que bi ma ñëwee du ànd ak man ci naa fekk du ànd ak man ci su gisul ma entraînement sax da koy métti comme li ma nas li ma ko jegoon même néeg noonu laa jegee dressage bi même néeg kon sant naa lu may dellu liir jaam di ko teg sama conseil may wax yow nga naan guddil na la bëccëgal na la mais nañ arrête na bàyyi sa xar la yàlla yem boole benn journaliste la am fu mu jëm yóbbu la <laughs> non déglu rek tey dañoo tey dañoo leeral yow nit ku baax la yow nit ku baax nga la mel ndax jamono yee ci ginnaaw woon naa la bi may nekk Vegas ay heure mais dama la woo ni nga wax man dama xam nitu dëgg nga tey euh, xam naa da nga am loo ëmpale woon ba tey déggaatuma xam naa changé nga ci benn côté loolu tamit dafay am solo mais man tamit su ma defoon benn affaire noonu nga ma koy waxee sa xarit la li ma la yóbbante soo waxateeg moom dégg na la kay non moom <laughs> gis nga wax soo la mayee buzz day xam noo ko gérer. champion nekk ko yomb na mais gérer champion moo jafe. accident ci machine lañ ko seetoo mais ci làmmiñ la yees bu làmmiñ waxee accident jëmm jaay suux kon nax bàyyi xel bu baax li ma koy wax conseil moo ko parce que bëgguma ko conseil mais bu mu topp toppati ci man di wax benn site bu génnee di wax bu tuddee sama tur ñi koy réglé ñeneen lay doon mais du moom du man ok léegi problème géej waaye sax parce que parfois dañu naan guy gi am na ñu naan guy gi sikki parce que dañu ne guy gi ak ak ak ak ak buusee wala ñu ne guy gi ak booy nu tuddati bu sita bu sita savara savara ak yeneen yi waaw waaw mais est-ce que booy yooyu ngeen déggoon ñuy wax bi ñu waxee ba tey wax naa ci ah def gis naa benn pël di ko félicité pël vraiment ku bëgg rafet la foofu fekk lu rafet lay def bi mu dajalee booy yi booy sa defe naa sa site lañ jégaloo. Mm-hmm. est-ce ba tey bi ñu jégaloo wax naa ci. Mm-hmm. ok est wax naa ci. ba tey dañ su may rek lañ maa leen jiite def nañu réunion ma leen tëdd naa jaar leen sama kaw dóor leen ma wax leen lu leen neex moo Faram du dem jox ma caabi ji muy réer ci man wala mu yàqu du ma ko def. Mm-hmm. am na loo xam ni su amee seen nopp leeru leen wala ñeneen nekk ci ñoom di wax ratatatat ñuy ay xale nekk suma xarit ñoom kenn ku ne guddeel na ma man du ma xam li ma leen defal ñoom kenn bu leen benn fan guddeel nga moom loolu rek laay xool ba du ma leen tontu mais liiru moomu guddeelu bëccëgul man dama baax. comprendre mais ñooñu du ma ci tontu ku ma ci fekkoon nga am dama koy taxawaat bu sita mi nga tudd suma la safara mi nga tudd suma rakk la néegam jour bi ma njëkkee doxaan gel falaa doon nekk ak moom <laughs> doxaan gel non dem nekk ak moom xam na ko ah. toog waxtaan mbégee tëddee ma defuma dara non na leen safara bi may wax ñu toog di waxtaan safara ñëw dalal ma ndeysaan dama mbër kale bàyyi ma ne ko kaay bu yóbbu kale bi kaay kaay kon suma nit la ay détail su may rek lañ mais boo ko jotee nañ wax kon safara am na fu jaar bu si tët noonu keneen keneen noonu ay mbay ci ñëpp kenn ko ne ñoom su may rek lañ Pape Mbaye xam nga ñooñ ngay dégg ñëpp su may rek lañ mënuma tey am xolu ki naan ci ñoom ñoo ma njëkk bëre njëkk ñu maa bëri amul sens yàlla dama boole ci école ma ñëw ci fekk fi ay nit du ñuy sama président parti si la ngay luum jiilu wadd sal sal maawo di la nuyu bu baax di la def observatoire doon na fekk ci école bi gars yi jàppoon ak ambulance tegoon ma benn genre ak fifi sénat di ko nuyu bu baax ama seen junior teg moom benn genre ma manqua yooyu mhm. loolu métti na ma nag <laughs> parce que bëri naa six mbapat togg añ kenn lépp ñu ne bu demee day daanu ma ñëw ba ci morpholam ne ko man man du ma mbër mun ma ah guy yow lëggéeyal rek lëggéeyal rek man ko dama la mbër lan ñëw man nee naa damay dem jàpp yennu daan man maa wax loolu man lañ ñëw da ngay mais Mor xam ne lu wàlliw la munuma li ma gis ci kanam yow lëggéey rek ñoom ñëppay ñëw billaahi wallaahi mi ngi dëgg maa ngi fen suñu masaan def nii kii boobu dañ naan ay 300 mètres litre daf may xëcc ba ci biir man ak ñaar mbër du ma tudd tur mais day topp sama biir bi dóor man kii li tax nit ñi bëree nii ñi teg ma dof mu woo ma di door sama biir am na lu mu gis ci man mm-hmm. saa saari woo ma ne ma boo gëmee sa bopp école bi yaa koy jiite ma boole yooyu di entraîné suñu daan dem làmb malal mel maa ngi koy nuyu au passage malal suma xarit la suñ daan dem làmb malal am na daal mu may ñu ngan yu gudd la sol ak tubéy moom su ma daan dem dama koy sol Seex Kan moo tax ma bàyyi parce que 33 bi dafa sàppoon ci nii amateur yi Seex Kan may tëkk di tëkk muuma di tëkk muuma sax kan woo ma ba ma ñëw ma def loolu lu la may doyee mu ne ma dimbaluñ ci 33 gi waaye gépp ci rek ngir yàlla xanaa 33 bi xam sax kan Omar Kane maa ngi bu baax di nuyu tamit njaatigéem Bassirou Ka bu baax ndeysaan njaatigéem borom teewaan pour borom teere yaa ngi dégg ah. mu ne ma 33 ko loolu tax ma bàyyi 33 boobu noonu est-ce que nekk ci beneen level gars yi su may def làmb sax des fois ñaan yow doo yéeg 17 bu ñu daan joxe ba ñëw ci man dañ koy tourné li may wax ñoo ñoo xam kon man bu ñu defee ne rek damaa jógee cere ba paas ñëw wóolu ma fi am titre foncé galaay xam nga wax. bul yàq bul yàq sama def loolu. buñ def loolu yàlla mooy borom faa li maa yorit yàlla pare na. mais nañ ci ànd. Mhm. man sax ni wax waxatuma ci cadre liiru. mais nañ jàpp ni guy gi dafa bokk ci géejawaay. tey mën naa ñàkk ànd bi ngeen ko njëkk a def ci combat Modou Lo. peut-être ngeen di ñëwoon sax ci stade seetaan si nu ñu da ngay lu ma la. yow léegi lan moo tax léegi 100 pour cent boobu noonu. 100 pour cent lan jox xaalis. man moo ma jox xaalis ne ma solal mbër yëpp. ñun biñu jaaree Pikine sama dañ ko yàq ma solal mbër yëpp ñu dem stade jour boobu ñu taxawu ñu taxawu xam man fan si Modou Lo dañ maa bëgg. ñu taxawu Modou Lo bi mu dugg stade yow guy yow bàyyi leen la ma leen bàyyi lu gën a jege gën a yegg <laughs> loolu alxuraan wax lu gën a jege gën a yegg Modou Lo dina bëri la de guerre ma ñëw di ànd ak Modou ma ñëw naan kilomètre gañ kon ma nekk naa fex di est-ce ma fex ma dem parcelle gars yi ma non yow dañ laa bëgg nanga man sa waay sport lañ wax géej waay parcelle la Modou Lo bokkuñu sëriñ seq nañ jàmm nag daf may bëgge dama koy bëggee ak leneen ak leneen mais nag ñu fi nekk naan damay loolu loolu buñ ko defee géej ma masa noonu la demee ñu njëkkee ko maay organiser match football yi maay loo gis géej mais nit da nga koy jox doyam jox ko wàcc waayam jox ko lim moom mu doxal mais boo amee noo ma tegee ma ne ko fu ñukk nekk ci li mu man kilifa la porteur de voix laa damay wax ñu may déglu si bu ma woo damay wax nga may déglu man du ku ñuy woo ñu nu tey xaar ñu déglu comédien yi di di dinañ ree xaar ñu déglu nangam man nit laa addunaa ma soxla addunaa ma bëgg su ma duggee ci làmb ñu bëri tàkkusaan duñ bi ñu bëri dañuy bàyyi li doon def tuusu guy gi bëgg jatu guy gi wala bëre guy gi kenn ku ne yaa nañ ci bëgg kon loolu dinaa ko yàqu suy ñàkk fayda ci moo géej mu dugg ci kon du ma ànd ak moo géej moo géej kii moom présenté ak moom Abdou Diouf muy Tabaski fekk moo géej day def est-ce que xaalis est-ce que gram Instagram Instagram waaw ñu jégal ma yaa ngi dégg Abdou Diouf ne ma Abdou eh, Diouf ma ruus ne ma saa mbër man Diouf bu waxee ne ma comme naa fi bëgg a mbër diisal baat bi waaye saa moo ma doon fekk moo bi mu laaj sama numéro am na ñu mu laaj ñu ne yoruñu ko am ñu ko laaj ne ma am ñu ma won ne ma booy bu la wooy day arnaque sa tour nanga wax expliqué. Mm-hmm. ma bàyyi mu sedd mais ab boobu njuufa mu jot njuufa njuufa ne ko guy gi xaaral yeewagul mu fexe ba ma jot ma mu jot ma mënoo mbër damaa bëgg nga dugg ci live bi ma ne ko mbër bu ma liggéey lu may wax moo génte mi may dégg ma ne ko lu may wax xaw ma la xaw ma la di <laughs> xanaa nga ne am beneen gaan bu ñuy wax gambien au passage ma ma ma tudd ko. non waaw ma tudd ma tudd ko. yaa ngi dégg gambien woo ma benn yoon ma ne ko bul ma woote mu instant na samp yow man de saa waay na ma fi mu toll ma ne ko bu ma duggee gambien lan lay wax waaye bu war waaye nii laa ko waxee bàyyi mu sedd yàlla bi def bi dara tawul moo sama diggante yàlla bu ne lay leeral day leeral Abdou Diouf boole ma ak moom mun dañoo bëgg éviter tabaski. bi ñuy dem lu la dégg nañu aéroport bi ngeen ko génn amul paas ak day xoos kër di carte ak moytu leen buy jënd ci bigit da ngeen moytoo man bi ñu demee dañoo xamoon yàq sama xel bi ñu demee bi for for ñu tardé vol am na de buñ ci gars yi de nañ ci aéroport bi ñu suba buñ jaloot di di day may gars wax ñu ñëw kenn njuufa génnul jour boobu ataay sax la ma man njuufa génn ma ba bu suba ñu demaat biñ demaatee man xaar fexeel fexeel pay ba ñu fanaani Vegas ndax <laughs> bi ñu dem dañoo dégg lu ne ñu dem moo def nit ku baax bëggal ma boppam lu muy def laaj ma bëggal ma moo bu taxawee na génn ci télé bu wax musuma ko ñaan wan dala xawma fi mu amee lijjënd ma fi mu amee parce dëkk bi ñëpp ki ñu ci joxaat nga lijjënd fi mu moo ci gën a tuuti kenn lijjëntalu kenn mais du ma lijjënti moo fi mu amee lu muy liggéey la muy def waaye moo na fekk président bu toog mu rend ko jël xaalisam moo ki mbokkam moo xam lu sama yoon bëggal na ma boppam mais damay seede ci lu ma xam lu ma xam ci moom lay seede fu ma yóbbu responsable bu ma sëkk laa ko personnalité bu ma sëkk moo def ma fekk 2011 may dem états nekk ñoom laay su ma dem sama xaalis laa yóbbale jox ko laay jaay na ko dépasse ko ne ma gi am na lépp teel su ma ñëw nu laa indaale sama xaalis ku taxaw États-Unis nekk jàppale nga ku amital ak euh, Abdou Dioum xaalis boo xam da ngay jël jox ma ko am na nag ñoo fi seet ay teranga ba ñëwee ba ci biir bëgg maa teg dof dama leen tege ne yàq mi ñu xarit parce que man doo ma jox benn fukki junni juróomi junni naan ma bu subaa da nga may tudd wala nga def émission tudd ma la nga naan tey de moom danga nga maa fàtte xanaa ah xaalis bi rek ma jox du ma la lijjanti dama lay bloqué dama lay zappé damay jëm woow ñu bloqué ma un an wala deux ans <laughs> lijjanti ma la man damay nit àndanti yàlla tax li ma bëgg wax nii man xam naa ñi may déglu xam nañ kenn du ma ñàkkal fayda wala nga toog naan mbëri nangam kenn du ci lekk sama xaalis wala mbëri jaam nañ ak i mbëri yàq deru mbëri États-Unis kenn ñuy wax musul musumaa xam sa buntu kër ni mel musuma tooñal cent franc soxla su may dem damay ndugg bu ndugg lu ma lu ma leneen loo xam ne mooy loolu au passage du nuyu Ousseynou Ndiaye wëcc ku baax la chaque jour bu nit ñëwee di wax ci moo dina la calmer wax ne te moo ñun ñëpp moo ñu gën a xam moo wëcc 124 entre 124 125 ñun ñëpp fa la ñuy jëndee téléphone mu nit ku baax nit noonu lay mel mais bëgg nekk États-Unis bëgg tuumal mbër yi bëgg yàq dër mbër yi te mbër yi amuñu problème boobu noonu ak nitam am na fa nag li ngeen wax ni sisante am na fa dëgg la mais benn parti bu ndaw te man chaque jour ma jëm koo defar. man damay toog ak moom. mu war a génn ma ne ko defal lii defal lii defal lii mu ne ma ok ok man dafa may déglu. moo suma fils la mais suma kilifa la nit mën nga koo mag mu mag la ci ci jamono. suma la suma kilifa la. est-ce que da nga fi ma xalaat kon su ma doon man wala ma bëgg loo xam ni tey euh, euh, moo day jax à sa part nit ñi du ko ni moo defalal kii ñu ci bëri bi ñuy ñëw Vegas du ma tudd maa ko naan teral diw teral diw far mu def man li ma kaw li kawee sama njort woo naa nit na ko jàpp ci woon na ko teral ko ma woo nit jàpp problème njole bi nii wax naa ci mais li ma yàq boobu li ma defal njole defaanul ma ko mais naa fekk mënul weesu nga nekk ci ci mbir ñu tudd ne problème am na nga noppi naa fekk mënul weesu loolu moo tax ma jën devant sama bopp devant sama intérêt beneen bi njole mun naam sax bu ñeetee guy gi euh, guy gi kat moo def naa nga mu ni wala guy gi bàyyam demul mu waaw waaw dama leen fekke woon naa ko ci waxin quoi. parce que nga xam ne maa ngi Ndiolé amuñu lieu boobu. mais leeral da cee ba ah amital laalaat ñi numéro Ndiolé bi ma ko laajee numéro Ndiolé mu jox ma ko man yoruma numéro Ndiolé fekk mi ngi ci hôtel bi man maa ngi ci feneen ma woo ko ne ko Ndiolé ma ma ne ko maa ngi dégg problème yi mais jàppee ko soxna Khadija ak euh, soxna Aïssa ak. Euh, yonent bi ak yonent bi tuuma gën a koo metti te dafa mujj dafa leer ñëpp dañ leen a jëw bi leen duut bi dalee dañ leen a caw kenn rek lañ ci jël yàlla tëgg ko te da koy dugal safara mais nag lu boo ko xoolee foofu rek doo sonn dalal xelam parce que métti na nag maa ngi koy xool comme sama sœur wala ma xool ko comme sama yaay coupé sama téléphone mais loolu dañ am solo mais xaw ma njëriñ keroog laa ko ma a woo téléphone mais lu ne dégg naa ko ci au moins. visage na tàppale internet bi ay jëf nga fay gis doo fa gis yow coow ma daan wala ñu daan ma wala sama fugg jeex na kon li ma ko naan c'est le travail qui dama liggéey dama liggéey ba ak si fii du wax moo ma ko yàqal. du boolema géejawaay tamit moom ko yàlla askan wi bis bu sama làmb jeexee day jeex ma seeta leen eneme mais nag kenn du ñëw toog jóge États-Unis toog ñu wax naan barki sëñ Bamba nangam nangam damaa diig damaa rus damaa nangam te billaah yàlla boo féetale rek ko amul li ma xam na ay seedala mobile dina génn mi mi seedaloo Abdou Diouf mii dina ci wax gis nga Elton kii Elton dem vocal fa ma ko tege da ngay tiit du ma ko ñëw ma ko teg ci rajo fu ne lay nga bëgg a taxal nit ñi ah, ci yoo xam ne amul pourquoi na arrêté benn beneen bi beneen bi waa Gilaay laay jégalu bu wér jégalu nas xam naa ni ma bëggoon développé sax développé wu ko parce que bu am lu ko métti ah. yaa ngi dégg jégalu nas jégalu ñi nga xam ne ñoo may seetaan su may mbokk dindi tuuma du ragal mais seetal sa der la moo tax ma def li tey kenn xamee ma wax ni man li ma mën mooy bëggal sénégalais yi au manière de caméra mais fu la lay doon bëggal sénégalais yi ci stade bi mais tey dama indi beneen facette leeral seetal sama der moo yàlla ma booleeg moom may ànd ak moom bëggal ma boppam tey su ma waroon dem États-Unis foofu tey entraîné ji mu soxla ma entraînement moo day ñàkk benn tàkkusaan li ma mën a may moo mun moo ko may sama lamb ji li tax ma indi fii moo bi ma xamee tabaski bi passé la te am na ñuy wax naan moo ñoo fowandoo nangam nanga def ay vidéo ba am ci problème loolu baaxul force ma man xam man force ma xam moo yàlla moo ñu boole yàlla moo ñëw am na ñoo xam ne tey dañuy toog seen wax naan maa la njëkk a xam moo nanga loolu bokk ci xeetu kiñaan nit mën na koo mujjee xam te mu jariñ la lu jaruñ nas bi ma koy xam fekk naa ma ay nit nas nas bi may jëndal kër amul kër bi may jëndal kër amul kër yaayam bi muy toog ci kaw terrasse di ma boole waa président waay fu ma jaar ñu wax ko ko guddi gi loolu dafa metti barke alxuraan yaayam recherche la ma boole woon recherche ñu may seet fu ma taal sama ñu ne ko maire démb guy gi martikil nàngam nangam jaar na fii maire bi woo ma wax ma ko yóbbu ma ci néeg ba ci kaw te am na ñu ma ko njëkk a xam darasaar bi ma koy xam yàgg na yàggul su ma ngénte dama ñëw di def mënuma banqal say loxo nas tamit noonu ñi fi ñëw sama ngénte dama demoon ba dañ may ndawtal maa doon ndawtal yow bu ko demee noonu daa laata laa sax sax ci ma kon loolu sant yàlla mais bu ñu dem ba ci biir nag kooku yàlla suturaal ko mu nekk ki mbokkam nekk fi mu war a nekk ngay toog naan naa ko teraanga na génn wax ah teraanga ngay wax. waaw mais guy gi euh, sànq ñoo ngi ci benn question mu bëggoon cee ñëw mooy dama naan damay waxee ci pas ñëw bi. te defe naa ni wax nañ ci bi ngay ñëw indi sa mbuus bu bula gëm sa bopp la may tey nga toog fii mën a doon champion mais man dama naan guy gi bi mu ñëwee bëreewul turu canaba géejawaay la bëree kon bokk na ci ñu yóbbu turu géejawaay donte bu dul doomu géejawaay à 100 pour cent waaye espoir am tax na mu doon doomu géejawaay mais ni ngay waxee nii nii ni fi kilifa yu jógee ku si mel ni Mor Fadam Père Mouhamed Ali ak euh, astafurlah ak Père euh, Balla ak Boy Bambara non ci biir géejawaay hmm. ndax tey mag ñooñu jóge fi ngeen war a defar géejawaay bu demee nii hmm. ndax ñoom buñ ñëwoon tey doo bokk ci ñuy defaraat seen sa toogin non sama toogin du ma ko defaraat hmm. parce que maa ngi ci va boo xam ne wax dëgg yàlla sant naa ci yàlla cooy fi am yëpp kenn déggul ma wax benn booy rek laa ci jëloon yóbbu ci kaso bi ci yóbbu ci police bi te yóbbu moom pour tëj ko càndum bu ma juwul moo ko jëloon booy bi opposé wu toog guy gi dafa soxor guy gi dafa nangam nangam te teg ko fenn boobu bëgg naa jot ci moom lu jot ci man ci guddi gi ma dawal sama ba ci moom ne ko bu di waxtaan damaa wala dama ko ma la te dégg naa ñetti combat am ñetti defet man fu man gaari yi mbalak te ma booy ba suba procureur def pré ñu def procureur plainte procureur directement gars yi nañ koy jël man loolu kenn ko def góor li ko dal mun na maa dal mais su ma rakkal naa ko teg ci yoon ma yóbbu ko agent bi ne ko dama enregistré vidéo bi ne ko yaa wax lii mun a wax lii foo ko teg mu ni noo bi muy bëri diw yàgg na léegi ma cinq ans dañ ko ni yow kii moom la tuddee boppam nangam nangam mu ne ko yaa ko wax mu ne loolu foo ko teg mu ni looloo taxoon mu ma meroon nag ma wax man ko man xawma la ji yaay kan bi ne ma yow la ñuy déglu ñu tëj ko defeere ko nga topp police loolu man ko mukk loolu indiwuma fi muy jégalu man ko juróom may jégalu ci man man noonu lay def zappé ma génn dem woon ko ginnaaw gars yi bëggoon ko sax yar ma bu la ko def dara kon sama der day yàqu man maa ko bàyyi ma dem ba ma demee ñu woo ma fee mu voyage ñu ne ma sa kër ma leen na génn kër gi ko benn booy doon na génn kër gi na ma zappe su ma pare naa ci moom parce que loolu mun naa mun na ma yàqal lu bari su ma su ma defewoon noonu ba tey tontu ma ci loolu de mais damaa dem parce que boobu yëpp maa ngi def tekk te boobu genre benn lobby la rek déggoo ma de genre benn lobby la rek mais ma nit laa ko xam tey bu ma fa dem ñëwaatoon per Balla gay ñëw Pep Balla moom xam na ni man damay nekk champion daan na ma ko wax di reetaan mi ngi ci dëgg man ngi fen fu ma ko fekk lii sama wërsëg naa ko jël jox ko te nit du ko yëg ma dem sama yoon mu ñaanal ma bi may bëreeg jaagar jaagar maa ko fu njëkk waa Guèye suñu biir maa ko daan ba ko arène Père ko indi ma daan Balla ma daan ko arène ba ci la ma Elton doon saaga saaga yu metti yi naan bu ma la jàppee man yow sama la man waxaat naa ko bi ma demee États-Unis barki dem muy sama xarit nag ku baax ni mu toll noonu ni toll du ma ko waxal lu mu deful. Mm. ko waxal lu mu moo ma njëkk am oto. moo ma njëkk dégg champion moo ma njëkk jël kalaaf dugg ma ci gën maa nekk champion. mais yàlla mooy borom fànn yi ma yëg bu mm. nangu rek nangu boo nangul nag da gën a sonn yàlla bu tëralee ngeen da nga yëkkati mu tëral ngeen day yëkkati yow da yëkkati tëral ko te boo tëdd rek du baax yow ma xam boo wàccee faa ma wax yow ne yow lan moo tax ma tëral ngeen da nga yëkkati da man ci xet laa bokk ku ma gis nga am dara fi ma nekk nii njuufa di reeree léeg di reeree léeg benn bis dama naan njuufa ma ne gis ginaar lay def 15 ginaar njuufa loolu loolu mënut a muñ man loolu laa xam ay nit dama yàlla booleel ku ci mel ne ku Thiès John Sina Pam Ndoy nekk ci kër gi dañ ma ciy laal mais ñi ma ciy laal boo seetloo du loo xam ni xam nga nit bala nga koo tontu wala bala nga wax da naan jàkk nit ki li muy wax bu nekkee ci yow wala bëgg ngaa mel ni moom soo bëggul mel ni moom bu ko tontu li muy wax ci moom la nekk nekkul ci yow man bu may tontu damay tontu su ma nawle kon suñu borom li ma mayoon da koy jël yàlla mënu ma may benn cinquante millions tey ci gàttal rek wala cent millions yow boo xëyee yaa ngi ko takkalee ci nit ñi soo waxul doo lekk yow boo xëyee boo kaajul doo lekk soo xëyee léeg-léeg doo añ sa yaay amuloo ko njariñ sa baay amuloo ko njariñ amuloo kenn njariñ presque fi nga dëkk da ngay luyee da ngay fay luyaas léeg-léeg ñu génn léeg-léeg nga dem tee na ko fayal mu luyaas nga bëgg xëy wax ci man bon dama lay comprendre rek mais du ma tont mais bu doon koo xam tey am na niveau ko man toll fi ma moom mu toll fi ma toll bu waxee dinaa génn tontu ko liir sax dama koon tontu mais dama bëgg a mettre ak gàdd géewaay ñu xam liir li wax amul moom moo ma tooñ tooñaan ma tooñaan ma saaga ma ndey saaga waat ma ndey man dama tiit njuuba yi nii du mu bàyyi ma fenn njuuba li ñu njuuba mu ni di daa xëyoon ñu jubale bi ko jéey waxee ba mu xëy rek romb romb Ndioufane mais man nu mu demee nii kii waxaatuma ci ba tey. ma teel a ma di nga ko jégal. déggu ma la seq maa moom moo dama lay tuuti rek xam nga tax seq maa moom ay njéggal. Hmm. tooñu li ma def dafa ma métti. billaahi wallaahi taala mobile dama koy sant bi ko gërëm. Hmm. mobile bi ma saaga mobile dafa écarté wu teg tànkam nii jël position bu ma naawee rek mobile def ma nii hmm. kon mobile dama koy sant di ko gërëm xam naa ni décision boobu la jëloon mobile na ma man. yow yaa ma gën man ko man mobile dama tiit beneen